warooñu warooñu warooñu taso suñu yaakaar ne warooñu kóllare ñu boole yow ñu boole yow ne warooñu mooy ci dañoo amoon benn cérémonie bu ñu amoon ci presque mat na ñeenti weer vraiment ma gis seen liggéey gis formation bu ñu def alors man leen dinaa leen jàppale ci fukki million pour que ñu continuer liggéey boobu loolu nag di ko rafet lu baax di sant yàlla aussi ma loolee tey jii mu mën a am tey di wax encore une fois de plus man ak équipe bi ma àndal euh, Alioune Tine ak ñoom ñëpp vraiment ñoom lu ñu gëm mooy ni réew mënta développé wu ci ñàkk xam-xam te xam-xam ñu ngi koy démarrer ci xale bi fu mu nekk xale bu tuuti donc ci ma ma tamit. mu am ku mel ni ak coordinateur ñi nga xam ne ñu ak ñoom ñu ngi ànd ci liggéey bi ci loolee tey ji moo tax ma ñëw appuyé ci ñoom pour sama objectif boobu ma mën ko atteindre moo tax ma jël somme 10 millions euh, jàppale leen ci pour que loolee ñu mën ko def je pense nag en tant que technicien moom dina mën a revenir aat ci détail yooyu merci. donc euh, li ma wax léegi rek mooy dañuy sant yàlla di julli ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant euh, monsieur le maire parce que santul nit aussi do sant yalla té sant gi liko waral moy dafa def lo xamné daf ñuko ko ndax bañu ñëwé biñu biñu service fi dans la région de Diourbel entre autres priorités dañu gissone né, le taux brut de préscolarisation manam xalé yi toll ci wara wara jangi, préscolaire wara dem fi au niveau de la région de Diourbel dafa faible ñu giss né lool priorité relever ce TPBS là mais ensuite ñu giss né les éducateurs ils yi dañ leen wara recapacité parce que gis nga qualité qualité de l'éducation. La koy wax qualité mënu l'éducation. am tank que amuloo ay jàngalekat yu xereñ Mom biñ ko bindé lettre wax ko mu a aucun problème D'ailleurs, au passage c'est une occasion de remercier son adjoint chargé de l'éducation, M. Aluntine. très rapidement il nous a financé un atelier a fait atelier il est venu il nous a réitéré véritablement son engagement.

Massali. wax na ko léegi dégg ngeen ko li ñu def ni, lii mu def ni, defalu ko petite enfance c'est éducation d'une manière générale lako ko defal donc motax ñu tew fi diko sargal diko sante mais surtout diko ñaanal lu mu mën ren Yalla dolel ko déwén mu mën luko ëpp. waaw yenen mère yi il va falloir mettre la main à la poche pas à la patte mais à la poche parce que aussi xam nga euh, jàngale éducation. Mandela dafa l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer un pays donc boo les éducation yaa parce que ndaw yi xal euh, tey yi petite enfance boo leen formé nga formé yi ñu jël yi ba d'ailleurs gis nga boo élémentaire bi préscolaire ak ki préscolaire